asalaamaaleykum tey jii dañu ñëw fii ci Biscuiterie yi def fi benn doxantu xoolaat suñu militants yi suñu xarit yi suñu mbokk yi suñu responsable yi tamit yu dëkk Biscuiterie yi pour soññ leen ci jogante yi nga xam ne moom la ñu jëm muy la présidentielle de mille vingt quatre ñu ñëwoon tamit jaar ci suñu baay suñu xarit suñu conseiller ki nga xam ne defe naa Sénégal bi yëpp xam nañ ko muy El Hadj Mansour Mbaye li ñuy tax a jóg mooy soñ suñu militants yi ci parrainage ndax comme nee nañu ci la bokk léegi balaa nga soo déclaree sa candidature ba noppi da nga war a def parrainage loolu ñoom ñoo ko fi tëral parrainage boobu soo ko jàllee ci ngay soog a nekk le véritable candidat wala kandidaat buy dem présidentielle ñuy expliquer nag ñi nga xam ne ñooy suñu responsable politique locale ñu jublu ci parenage bi ba li nga xam ne moom lañu ñu laajte ñu dem ba weesu ko defe naa Biscuiterie bi fii mooy suñu base boo xam ne jëflante nañoo waa Biscuiterie loo xam ne incha allah yaakaar nañ ne Biscuiterie bi suñu yàlla defee ba ñu jàll parenage ba dem ci candidature bi yaakaar nañu ne dinañ ko gagné incha allah ñuy wax ak nag sénégalais tey Sénégal fi mu tollu dafa nekk pour la première fois un président sortant mu bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo yëkkati seen loxo am yéene ci Sénégal yéene boobu mooy ku ci nekk danga jóg pour defar Sénégal naam. képp koo xam ne sénégalais nga constitution may na la waaye li may ñaan opposition bi mooy nañu daje ku ci nekk ku yaakaar ne moom rek su demee dina gagné le parti au pouvoir nax nga sa bopp lenn la ñu mun a def pour daan leen mooy ñu ñëpp opposition bi ñu daje nekk benn say mun nañu sax su ñu nekkee benn say quatre wala cinq candidats dem ku ci jàll parenage ndax parrainage bi yéen ñëpp xam ngeen naka la nar deme ñoom ñu ñu neex la ñuy bàyyi ñu dem ci parenage bon léegi pour nous donner une chance ñun opposition bi war nañu daje ñun ñëpp ñu def benn say et là je lance un appel à tous les candidats déclarés tous les candidats déclarés de tous boor soo demee ba ànduloog pouvoir bi opposition nga nekk donc ñun ñi nga xam ne ñun la ñu woowee opposition bi maa ngi leen di ñaan ñu daje def benn sey man commencé naa ci dox dinaa ko eggale incha allah képp kuy kandidaa déclaré ma xam fa nga dëkk wala xam sa adres dinaa ñëw ba ci yow ñu seet naka la ñu mun a defee une intercoalition su ñu defee intercoalition coalition yi nga xam ne ñoo war a mun a présenter seen candidat ñu jéem koo seet ba mu mat six quatre ak nu mu munta toll ñu jox ñu une ba pare am benn charte boo xam ne dañ koy bindi ba nga xam ne kenn ci ñun su jàllee parrainage bi ñi nga xam ne jàlluñu parrainage bi ñu eggali liggéey boobu après le parrainage dem au présidentiel def campagne ensemble gagner le pouvoir ensemble ndax pouvoir bi fi mu nekk ñëpp gis nañ ko benn Bokk Yaakaar tas na APR tas na d'ailleurs dañu sax am problème mu parrainage responsable yëpp a ngi toog ne dootuñu parrainer donc léegi ñun lool suñu chance la ñun opposition bi mais chance boobu ni koy mun a valoriser niñ koy mun a def ba nga xam ne mun nañ leen daan au premier tour mun nañ leen daan et c'est possible donc maa ngi ñaan. képp koo xam ne candidat déclaré nga bul yaakaar ne yow kese soo demee dinga mun a dara ci parti au pouvoir bi am nañu ay pexe am nekk nañu au pouvoir am nañu doole te am nañu ay appareils yoo xam ne tamit représenter nañu fu nekk donc ñun suñu àndee dool bokk suñu def suñu doole mu doon benn yaakaar naa ne loolu dina mun a facilité seen daan le soir du 25 février 2024 bon appel boobu laay joxe képp koo xam ne candidat opposition nga ñu daje ci pour ñu mun a ànd nekk benn dem aux élections